Fass eh Talla Ndiaye Pato ngay ñaan eh arbitre ba ngay ree yaa yey ree lii ku ko reewul da amul i bañ Macha ngay mooy arbitre combat bi da leen di yet lii bi bëgg ak lii waaw lii day bañ lii règlement bëgg ko waaw waaw foofa yaa fa yóbbu sa bëri leen ci géew bi juróomi avertissement yaa ngi wax looy wax defal police ya day sëlmu eh waay waay Talla Ndiaye waaruwoo Talla damaa kee. xanaa boobu mooy dernier butel. ah dernier butel macha ngay mooñ. arbitre ba mooñ na avertissement wulli daa xëppee wulli da ngaa xëppee avertissement ñaar wulli wulli mbaa du ñaar te arbitre suuf léegul arbitre pare na ah ci kawam la jëm taxawal eh da koy songu day xeex ak moom xeex ñu ngay xeex wulee poto laa ilaha illa la eh bi poto jël na wuli bi poto jël na ko door na ko door na ko dina ko daan eh wulee poto wulee poto eh laa ilaha illa la wulee poto eh Talla Ndiaye wi nekk Pato. naan kaay Pato ko naan kaay kaay kaay kaay bu bul dem wu leen te sa eew lii wu leen yooyu na ko doon naan wu ngay naan wu leen ngay ngay laaj ndox wu leen pare wuli ak bala joon la laa tànk bi ko ñaari yoon mu rek bu ñaaree bu ñettee mbaa baax Talla Ndiaye filmal ma xoolal wuli trois avertissement quinze pour cent dem na wuli laa la laa noyyi de biir yaa ngi jóg Talla biir yaa ngay jóg wulli yàppi na protestant ba. Babacar lii sexal nanañ ko sexal nanañ ko sex ko waaw sex ko danga koo war a sex wulli day dem waaw bu neexee poto mu seeree kombaam ndax wulli am na ñetti avertissement wulli am na ñetti avertissement li doy waar tey mu ngay dóor poto dóor mu daanu dóor mu daanu sol na ko poto naax na ko. Pato naax na ko eh bii combat du yomb bii combat mënta yomb ñu koy rokos rokos Pato ay waay leet na maa ngi mbërëm police mi ak mbërëm Aziz Ndiaye mi ñu ngay ñam Pato eh mbot daan nañ la wuli daan na ko kat Pato kat appi wuli na yàlla ñëw na waaye yàlla ñëw na. wuli daa sonn wuli daa sonn na wuli yàlla ñëw na wulee ngay julli koy sotti ndox mi wuli yàlla ñëw na wuli yàlla ñëw na wuli yàlla ñëw na wuli yàlla ñëw na alhamdulilah na lu la kontaan yàlla ah? dama sant yàlla dama am combat Sénégal gëpp dama ñaanal wala neexut ah, neex na lool combat bi tey barke Seydina Mohamed même boobu ku mu mën a am tey dama lay daan fii léegi kan moo des xoolal kii Lamine Thiam daa jóge Gambia bi laa gir